comme euh, internet Dakaractu tey ki dalal ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade ancien vice-président de l'Assemblée nationale du président PSD jant bi Mame Cissé mu ngi lay nuyu. maa nous lay fay Youssou. waaw tey ñu ngi tey waxtaan si yenn pàcc tey dañuy commencer actualité bi actualité africaine bërki demoon Ndiaye gis nañ président Ibeka am na coup d'état bi mu yow tey ak implication CEDEAO bi tey est-ce euh, CDAO dafa la laaj la ko a euh non Youssou euh, vague boobu di condamné CDAO man bokuma ci d'abord limay may condamner moy coup d'état bi dans une démocratie normale le jeu républicain et le jeu démocratique voudrait effectivement que li sample démocratiquement nous bàyyi ko mais l'irruption aujourd'hui des militaires dans le jeu politique surtout pour un pays comme le Mali quatrième coup d'état dès que vous avez amené le lu ko doy Si mu gérer même Ibeka, Mali c'est à partir de Bamako il y a des territoire c'est-à-dire les deux tiers du territoire malien aujourd'hui ne sont pas contrôlés aujourd'hui par l'État malien Définitivement, naa ne armée urgence effectivement l'unité du Mali mais d'où on pour pour profiter effectivement sur la faiblesse qui a été entretenue par Diko et autres des gens ils ont aussi des comptes à rendre parce que si tu ont comme Choguel mais il est à toutes les sauces depuis combien d'années Mingiti, ils ont été défaits parce que a voulait une sur les élections euh, euh, présidentielles nous avons créé un M5 qui l'œuf du serpent qui andi la conséquence de tout ce qui est en train de se passer mais nous me comprendre aujourd'hui des civils surtout quelqu'un qui a été démocratiquement élu parce que jusqu'à présent on n'a jamais posé la légitimité de l'élection de Ibeka... IBK li wax y a une partie de législative Bougaï Galgati. donc problème de contestation Qui est législative là, et une partie mais ça euh, légitimité en tant que président de la République ne mosu contester comment comprendre aujourd'hui des des des militaires que c'est comme ça une euh, irruption sur le jeu euh, démocratique moi je suis pas d'accord deuxièmement je ne fais pas partie des gens qui pensent que la CEDEAO a échoué CEDEAO son rôle c'est pas dans un premier temps d'être coercitif Nous, pour damay xeex damay def les États qu'on le veuille ou non ont quelque part une souveraineté li ñu mën mooy jéem la leen jubóole ñoom mais un pays comme le Mali bi nga xam ne la tey même ta sécurité da nga ko tayle ñeneen ngay dépendre aujourd'hui pour que ñu téyel la sécurité la nga waroon jëk def tay moy faire tout pour que sa sécurité nga mën ko topal sa bopp. mais ni population bi aussi avant boobu doon nañu ñaxtu ak ñoom bu nekk ñu génn jàmbaar euh, manam def ay dox ñaxtu ba euh, tax militaire yi dem song ko waar tey est-ce que euh, amul légitimité aussi population bi li ñuy revendiquer ba armée bi jëloon ñëw attaquer palais par exemple pour foqati ngor gi sa loxo yi IBK. Euh, la clameur aujourd'hui des populations maliennes était une réalité et d'accord nañ peuple à part mon souveraineté entre en respectant le calendrier républicain Qu'il faut-il? positivement ou négativement dañ koy changer IBK il les a défaits premier tour il deuxième tour a gagné Il ji ñëpp dans les moom le jeu démocratique il il faut exercer il y a effectivement que l'attente était très forte parce que euh, dans nos états là surtout à Mbassmi, il y a aujourd'hui énormément de pauvreté Sauf qu'au niveau de corruption il y a un problème au Mali la corruption effectivement avait pris des proportions inquiétantes avons dégg un rapport semaine passée aux Nations Unies qui a condamné et stigmatisé aujourd'hui au premier chef le directeur de la sécurité d'État pour que dafa nekk ci ay des et cetera j'espère que dinañu mën a xam li ci nekk les tenants et les aboutissants mais souvenez-vous du temps de ATT on a parlé d'un avion sans pilote bu de fofu ak héroïne donc c'est un pays qui devait aujourd'hui se refonder Quel rek laa un discours aujourd'hui pour ñu comprendre la sociologie euh, de de de de euh, politique malienne Moi, Penda Mbow qui ci bien confrères, confrère am na lu mu lu am solo c'est-à-dire pour des raisons historiques et sociologiques le problème du Mali a affaire au Castille dafa dem ba nga prégnance sur la totalité aujourd'hui de de et de vivre mais ce qui est valable au Mali n'est pas forcément valable au Sénégal mais li nous le comprendre au Sénégal Moi, des gens censés être démocrates de saluer aujourd'hui un coup d'État parce que quelque part ils ont des problèmes crypto-personnels à régler. Ils veulent transposer aujourd'hui ce qui se passe au Mali au Sénégal. Mais le Mali n'est pas le Sénégal mais mais xam nañ le Mali aussi mu ngi buntu Mali ak Sénégal daanaka benn frontière la dox seen diggante. oui tey nii aussi euh, ak frontière yooyu ñu tëj. parce que du impacté Sénégal maanaam ñun du ñu yëg tey tëj yooyu noonu du am dara lu ñuy gaañ ñun Sénégal. non euh, soo jëlee effectivement suñu diggante sur le plan économique entre Sénégal et Mali effectivement trafic bi toll woon na fenn foo xam ne ne tëj ko su yàqul du defar euh, mais am na loo xam ne ne tant que c'est stratégique on peut faire des dérogations parce que eh, il n'est pas question de mon point de vue et, selon l'entendement aussi de la CDAO, eh, y à la famine du peuple malien. Non, la CDAO n'a aucun problème personnel avec le peuple malien. Mais la CDAO aujourd'hui, en tant que composante politique, a effectivement beaucoup de choses à reprocher aujourd'hui à une jeune. Pourquoi les militaires Ils ne sont pas préparés à cela. Ils sont de démissionner mais mais quand tu démissionnes à euh, benn mitraille la à la tempe c'est pas possible Ibeka, si on est libre de la totalité aujourd'hui de ce mouvement su effectivement me démissionner ne peux pas comprendre mais c'est les circonstances qui ont dicté effectivement le tax Ibeka ñoo taxaw di wax démissionner rafetul Diakoul, mais nous ko libérer Ibeka, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher c'est démocratique Soutenir le c'est en tant que président de la République le télé. la ñu waroon xaar mooy xaar ba tey élection yi euh, euh, euh, le respect du calendrier républicain suñ ko waree changer ñu doon ko changer mais tey y a un problème pour que ñuy wax ci affaire am. tey dañuy wax Mali waaye aussi démb ak barki démb ñu ngi wax kaaw Côte d'Ivoire ak ado mi maanaam Alassane Dramane Ouattara mi président Côte d'Ivoire mi bëgg a postuler waat maanaam pour am troisième mandat te yow loolu en tant que acteur politique yow naka nga jàngatee loolu est-ce que loolu voilà euh, il faut qu'on se méfie de l'impact des médias sur les populations parce que selon ce bon vouloir <laughs> ils sont démocrates tant que ça les arrange on demande euh, aux autorités on demande le respect des calendriers républicains le respect euh, de la constitution tant que ça les arrange mais au Mali ils sont tous derrière le putsch parce que ça les arrange et quelque part ils veulent le transposer par rapport au Sénégal ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire mais le président euh, euh, Alassane Abdraman Ouattara l'a expliqué. Tout le monde savait que la charge présidentielle est tellement lourde que ku ci ad mais préparé Balibi le préparé pour nous remplacer ko nit ak ambition mais il y a le à trois mois quatre mois des élections quand le fait yegg au pied levé moné puisque de ci investir def ci li mais monotone à quatre mois au risque de briser les plus de fonds d'abord au sein de de de de son rassemblement là il y aura énormément d'ambition il y aura a taxaw su ku mu ci tànn ñeneen ñi euh, exploser dëkk bi par rapport à le je préfère man de la le temps de préparer et puis pour que ma yóbbaale ñep ñoo xamné ne à une ay mag nañu mais tu ne te rends pas compte tay ça ne te choque pas que Bédié di di di à 88 ans comment tu ça ne te choque pas que c'est les mêmes hommes politiques qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est quelque part d'ailleurs au Mali lu ñu wara régler c'est-à-dire tay pour moi, l'élite politique du Mali ñom Choguel yëpp ñëpp dañu tay à la retraite parce que ñoo yak tay Mali alors dans ce cadre là Alsan Ouattara

mais c'est que moom est-ce que moom il lui appartient moom est-ce que moom moom moo war a choisir ki koy remplacer est-ce que ma yaakaar ñëpp jàppoon ne population ñoo war a choisir que ñu yaakaar ne moo la war a mën a toggal ci bopp nguur gi. je suis parfaitement d'accord mais mais comprends aussi que ki nekk président de la République liggéey deux mandats muy 14 ans refondé jël ay engagement am fu mu teg dëkk bi. yow nga xam bu baax ne dans nos états képp ku yegg si la sa morom defoon dara baaxuti alors que. Euh, Youssou ans dans la vie d'un individu c'est rien du tout mais 5 ans de mal gouvernance de de de de de nébuleuse de de de choix inappropriés conséquence que sur un état c'est au moins sacrifier une génération mais comprenez-le en tant qu'homme responsable soucieux du devenir de son pays que mu am souci vous, malgré que le jeu démocratique

au contraire ñep dégg nañ ko man de bokk naa ci ñi gëm ne que du question wu Nafson mo tax mu togat fa parce que Alassane sur le terrain, teraanga am na ko ba mu nekk à la fleur de rage régler na beaucoup de choses à son pays et à son peuple mais tay ce qu'on lui demande moy davantage mettre l'accent sur la bonne gouvernance suñ ci mettre l'accent teg les fondamentaux il y a pas de problème man suma d'accord d'accordul ak Alassane Ouattara c'est par rapport au choix monétaire. Je respecte son point de vue, je peux ne pas le partager, parce qu'il pense que la stabilité au sein de notre espace économique, eux et moi, Moussa et Fabi, nous avons parce que permettre nañu lutter contre l'inflation Etc mais da le fait un les populations rien n'est aspiré Moi, lan avoir plus d'indépendance Regardez nos relations au Sénégal Avec ak Sénac des gens qui qui qui réagissent comme des colons heureusement qu'il y a des gens comme Job le, le, le, fameux directeur général d'Académique, qui ose effectivement mettre le pied dans le pied Mais il y a des gens qui ont benn sous-préfet qui ne en territoire conclu la Dakar c'est un patrimoine national bu emprunter l'autoroute à péage nous connaissons parce que c'est un minimum de l'union l'essentiel aujourd'hui de l'autoroute à péage ñun mais c'est un kan mais l'état du Sénégal na am ful ak fayda ñu nationaliser suñu bëggee yab nañu nationalité euh autoroute bi parce que ci loolu la ñu xaar tey état. donc amna ay mouvement yo xamné ne ne foofu lañ koy gisee. foofu lañ si dellu parce que actuellement ñu ngi si diggante Côte d'Ivoire wàcc nañ euh, ba euh, jugee nañ Mali. Côte d'Ivoire dañu ñu Côte d'Ivoire ba ñëw Sénégal ñu jaar fële fii toll na Guinée. Guinée gis nañ né aussi président bi daanaka jafé jafé yi ñu wax euh, Côte d'Ivoire moy fas yéene toogaat daanaka jafe jafé yooyu lañ fa gis mel na yeen yéen yéen acteurs politiques yi daal fasu leen yéene maanaam wàcc nguur gi daal da ngeen da ngeen moom gën a daal warkaay rek ilaa mais pas du tout la preuve comparaison des paraisons autant je comprends Ado autant je ne comprends pas waa ji nekk euh, Guinée d'abord mënatul dafa tële Ndigam day metti dox bu baax sax waa ji mënu ko lu mu tudd sax Alpha Condé comme Alpha Condé dox sax mënul ko mais Koko, la muy agrippé wu ci pouvoir je je me le demande amu fi tey benn enjeu bu war tax waa bëgg ne toog ne un troisième mandat amul fenn mu am que les au moins la constitution qu'on le veuille ou non doit régler le problème c'est-à-dire c'est selon son bon vouloir aujourd'hui parce que la constitution lui permet d'aller aux élections Qui dafa bëgg le le Guinéen dafa bëgg a le doole parce que pour moi, et tu sens que ça, c'est un problème qui transcende aujourd'hui euh, les populations ça devient un problème ethnique parce que pour nous... Ouais, euh, euh, euh, le chef de l'opposition là le Fouta bi waru waru toog parce que nous avons a l'affaire rek de Soninké et de Malinké mais il jooju le a taxaw avertir ko ne ko soo ko def ñu la à la à la à la à la à la Yaya parce qu'il n'a aucune légitimité à accepter à vouloir le faire mais euh, qu'on ne transpose pas l'affaire l'Union ñu wax ñu troisième mandat a ko sa c'est les peuples qui élisent waaw mais Alassane Ouattara a am ambition mais il na le li les les, les, les population ivoirienne bi d' accord def li muy def ci il peut être défait dans deux mois Sous population bi taxawé N'est que ñu ko falat kenen mo len doy mom lañu fal kenn mu ci mën dara kon nañu bàyyi légui la légitimité au jeu démocratique moy ci ci ci ci ci ci ci élection bi ci ci scrutin bi ci ci ci mbagn bi.

Et heureusement qu'il ne rentre pas dans ce jeu-là. Pourquoi Et puis cela dit, mais quand je suis ci benn branche bëgg a ci branche bi nga toog Macky Sall kañ il a fait actuellement il est à sur 16 mois comme 18 mois mais sur 5 ans il ko fal nga bëgg a tey mu ne de man élection pour que gars déjà il y a beaucoup de choses à dire il y a des ministres qui ne sont pas loyaux le niveau de corruption il faut qu'on en parle. comme qui par exemple. des scandales comme Akile baaxul ci réew d'autres contrats maa ngi lay wax Sénat mais mu yeewu suba teel ne man dematuma élection gars yi sàcc suñu xaalis gars yi nga xam ne ne ci lu normal mais au lieu ñu talati léegi euh, Sénégal ken dootu ci talati Sénégal xam lan mooy doon seen problème naka nañ ciy remplacer waa ji fi toog kon kenn dootu ci liggéeyati nga bëgg à quatre ans des élections ñu nekk ci campagne électorale permanente.

conseil de de cabinet waaye dernier yow tey ba léegi daanaka ñu xanaa dafa mel da nga bokk ci kaw Macky pas du tout yow ñaata yoon nga ma interviewé Dakar Actu Kañ ba man ku may xam Mamour Cissé xam nga ma ci dëgg li ma d'accord d'accord parce que man dunduma politique dama ya, ko war a def pour suma askan wala à la disposition de mon pays mais man a interview dem mais pourquoi bu population bi kenn du ku mel na yow ah lan la population ñu ci lu ñu waxul euh, man may jallé toujours ci péage bi muy souci dégg la may wax lén ci péage bi mais aujourd'hui le niveau euh, de notre plateau technique mais est une exigence pour nous et heureusement que ñom fort heureusement que tay ñep comme nan nga parce que kenn mënatul dem beaucoup de leaders et beaucoup d'hommes euh, ñom barké ñi ngi génn aduna parce que mënatuñu dem en Europe kon tay la nécessité aujourd'hui de mettre l'accent sur un plateau technique ak jël moyen jox ko suñu santé bi lu am solo la man dama ci mais dama ne lu pas ak tam wax d'accord c'est un scandale wax mais mais ak leneen ak leneen travers yi nga dama ko constaté mais d'accord ma ci 94 milliards il faut ñu wax ko il faut ñu xam tapé on a accusé Mamour qui a accusé euh, il a raison il n'a pas raison il faut que la justice vide ko tu penses que tu es ñu nekk amul urgence le greffe tribunaux quel tu le lié? pourquoi parce que greffiers ils sont en grève tu penses que raisonnable tu es ñu jël en otage le Sénégal depuis trois mois dara Quel quel nous régler dara la procédure nous nous tu penses que ça c'est sérieux est-ce que nous ñu est est-ce que c'est pas plus utile aujourd'hui que de parler de troisième mandat Bon, on ne parce que c'est dans quatre ans qu'on va le poser deuxièmement mais le temps des politiques n'est pas forcément le temps de la justice su vous dañu accepter le jeu démocratique la mu waral su ñu apprécier mais dama ne président tey dama ko doon xeeb su di wax ci troisième mandat Moi, am 4 ans suis a ligue, urgence est taxaw fi Covid bangi ngi bëgg a on est à 1% de taux de croissance Si continuer continuez ça veut dire que la pauvreté va avoir de beaux jours encore waaw sur sur l'agriculture si nous avons les moyens d'investir pour que nous puissions autosuffisance en matière de riz y des céréales locales qui ñu les ko en quantité comme on est en train de le faire il faut des moyens eh, moyens yooyu lan la impôt un impôt une entreprise qui nous mënee liggéey su entreprise mënul liggéey naka lay mën a joxe impôt loolu gënul urgent tey Que wax ko que problème ay troisième mandat parce qu'il y a des gens qui veulent régler ce problème crypto personnel ay Macky Je ne ko nangu man dinañ ñëwaat si benn fànn daanaka daanaka ubbi nga brèche bi mooy affaire Covid bi ak relance euh, économique bi yooyu mais avant boobu bëgg naa ñëw ñu des si mbir politique bi parce que ñu ngi wax dialogue socialité actuellement yow tey lan mooy si gis-gis tey euh, kan nga war a jàpp ne par exemple bu ñu doon ne mooy leader de l' opposition yow débat bu yow fa ngeen fa ñu si toll tey sa gis-gis comme yow acteur politique nga. mais tey suñu doon suñu wax tey ay la yoon kan mooy leader opposition c' est Idrissa Seck pour man mooy le deuxième aux élections présidentielles parce que nous gis nañ que c'est une coalition Moi demande au DEC deuxième moi, la coalition qui était conduite par le président Blavat. <laughs> puisque loolu coalition on amène du na ñu bari ñu ci nekkatul wala ñu ngi mais kon en tout pour avoir une bonne visibilité il ça la kon pour moi, je chef de l'opposition parce que le président Blaise n'est plus actif en tant que secrétaire général donc je suis d'accord je suis patron de l'opposition mais puisque suis suis pour man que suis je chef de l'opposition Nous sommes d'accord pour nous respecter le calendrier républicain Mais ce dem dem il faut que sénégalais xam que pandémie bi dans nos entreprises mingi partout tay et pour mal ce que le ministère de la santé est en train de nous donner comme chiffre est faux dépassé nañ ko trois fois ou quatre fois kooku d'urgence d'urgence. mais urgence mais actuellement. Quand communauté yi musiba naaru laay la. mais yéen yéen acteurs acteur yi aussi par exemple vous êtes au cœur du pouvoir yéen daanaka lu bëri xam ngeen lu ñu ump ñun ñu si bëri pourquoi y du une dénoncer pourquoi du ngeen jël micro yi wax ci pourquoi du ngeen. mais wax mais wax nañ ci ñi nga xamné ñoy responsable ñu ngi leen di ko yónnee di leen ko wax yaa wax déclaration communiqué ñi def pour lolu la pour wax né que mais nañu mettre l'accent sur la médiatisation porte à porte bi nañu appuyé wu ci ASC mais je j'étais content bi ma gisee le sociologue Djibi Diakhaté commencé ko sur sur euh, Grand Yoff hier ou avant-hier dégg naa ñoo lanko ñoo bañ xoma euh, mi ngi def communication mais ana les maires ñi nga xamné c'est un démembrement de l'État am na moment quand il s'agissait de donner de distribuer des vivres ñëpp dégg nañ leen j'ai comme l'impression que mal, <laughs> il y avait d'autres arrière-pensées derrière tout ça parce que bañ ko defee ba léegi kenn alors que ñoom ñoo yore collectivité de base quartier yi ñoo ko yore ñoo waroon dëkk commencer sensibilisation bala ngay jox bala ngay ne am ne bala ngay jox nit ki mu lekk mais defal prévention bi nga wara a def pour que mu fagaru jël disposition yi muy jël ba nga xam ne ko permettre mu mëna a am lu mu amé euh, euh, liggéeyam

tey dina euh, tax Sénégal suqali ko génn si jafe ba génn si jafe-jafe yi. Euh, gis nga fi mu ne day metti xam nga lu tax parce que ñun d'abord amuñu moyen coopération multilatérale bi xoolal tey engagement yi ñu jëloon par rapport à mille milliards yi naam am nañu lu fi dugg mais la totalité pour nga mobiliser ko problème la parce que tey France ak keneen ak keneen dafa am ay problème

gars yi taux zéro dañ koy abalé mais xaalis bi dafa bari ba nga xamné il est préférable ñu abal ko France comme ñu bay ko non parce dañ ci fay taxe bo xamné na baxul ci ñom pendant ce temps le Sénégal xam nga ñaat lay jëndee xaalisam 6 à 7 ci marché wu UEMOA bi ak sur le plan international pour am dërëm kon ku mel nonu suñu ñu ñu bëgg ñu ñu bolé ñu day metti Sénégal tay pour ñu génn ci lii il faut ñu am vaccin bi ni ci mën a dal priorité ñu il faut que l'État du Sénégal les l'entreprise. Le président exprime une volonté politique les ministres concernés Koutinek, Wangadem, et séquencer affaire par secteur d'activité à Niko parce que il y a des fois des problèmes beaucoup de gens m'ont dit qu'ils éprouvent énormément de difficultés pour avoir accès à à Covid bi mënuñu ko jot parce que des fois banquiers sont dañuy des fois ils leur demandent des choses Qui ne sont pas croyables pendant ce temps les plus ñu amoon ñu ngi koy pour mën a fay salaire parce que ngor moo leen ci jàpp kon entreprise crée de la richesse l'État du Sénégal Warner, soit su les moyens def le keynésianisme mooy relancer l'activité économique par la consommation Warner na jox industrie tailleur yi nekk fii groupement collectif collectifu tailleur yi pour nous def masque pour nous relancer où Il y a un collectif aujourd'hui de femmes boo xam ne ñëpp xam nañ ne dañ doon liggéey ak Nigéria mais tey Nigeria, Nigéria ñëw parce que mbas mais woo leen nga ne 2 millions ou 3 millions de masques ou 5 millions de masques ngeen a le ministre de l'industrie pour pour que un masque je vois que le ministère de l'intérieur au départ le président Wachna n'est pas d'accord. je man à commencé sol masque man le ministre pour que su ma nekkee masque pourquoi parce que dama war a masque.

ban responsabilité la du état bi moo jël la pourquoi soo magal wala gàmmu mais mais nga gis fa policier gendarme lepp nek fa mais parce que c'est le rôle de l'état kon nga jàpp ne kon màggal bi nga ko waroon doxal moom gàmmu yi di ñëw. non na état bi waxtaan ak autorité religieuse pour trouver une solution mais dire que l'état état war ci bokk je ne suis pas d'accord accord. kon ñu remercier euh remercier euh, kii Mame Cissé président. merci euh, Dakaractu kon. Euh, Euh, ñu ngi leen sant di leen gërëm xam naa leen jox def daje beneen jamono ak beneen invité